lay tey ñu ngi fi nga xamante ni moo di Gambia people. ñëw si li nga xamante ni moo di face to face. Mhm. Ama Balde Modou mhm. waaye Tapha Tine ak Eumeu Sène. tey avant boobu ngeen di ay kilifa di ay doyen. Mhm. tey ñu teg ñu si seen loxo. waaye tey ku ne bëgg na. képp kuy ndaw rek soxol xol fees na tooy na waaye bëgg nga. Iba ñu lay ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokki internet yi. waaw maa ngi nuyu sa mbokki internet yëpp di am contentement toog waxtaan ak yow mm-hmm. ñu daje fii tey si Gàmbi mm-hmm. Gàmbi tey mel ni Dakar mm-hmm. Gàmbi tey mel ni Colobane Gàmbi tey mel ni Liberté 6 Gàmbi tey mel ni ñaari tali Gàmbi mel ni Sénégal la donc Sénégal bi bu ñuy woote mu ngi fi ñu am tamit contentement si teral bi ñu teral Gambien yi parce que c'est pas évident ba si bag bi ba fii vraiment amuñu benn problème macha allah euh, gis nañu sourire bi nga xam ne mhm. moo nekk si Gambien yi mhm. xam nga ay nit yu jàmm la ñu daal mhm. ay nit yu jàmm ñu ñaanal dëkk bi gën a développé amiin le plan infrastructure mu ñu gën a parce que li ma gis fii si réew mi jeunesse su Gambienne bi mun nañ ko gën a développé seen réew. waaw li ñu gën a gën war a gën a développé rek mooy seen féré bi. pour man war nañu dépassé li ñoom tey jeunesse boobu. Mhm. jeunesse bii di ñëw. Mhm. war nañu fexe ba dindi li nga xam ne tey colon colo les les oo ñoo ko fi defoon. Mhm. ba nga xam ne tey dañuy dem ak seen propre moyen. dëgg nga xam ne dem beeg dikk bi day gaaw. parce que dem beeg dikk bu gaawee rek économie bi day dox. donc loolu daal. Euh, te gis naa tam président euh, Adama Barrow ñu koy nuyu de passage. parce que tey bés bi tey bésam la. Euh, gis naa ay yu ay. pion yu mu teg mhm. pour développer yi nga xam ne mooy Gambie ñu koy ñaanal yàlla may ko mu àggale ko ak jàmm amin amin amin ngeen ko déggee rek euh, am na solo waaye tey dañ fi ñëw def fi face to ki nga xamante ne moom di Ama Baldé ak mhm. Modou Lo fa laay njëkkee mhm. naka nga gisee forme li nga xamante ne moo di ñaari mbër yi waaw man nag yàlla rek moo tax may wax man gisuguma Modou Lo gisuguma Ama Baldé si image yi laa gis mhm. comme ñu mel ni yéen mhm, mhm. reyante ba dem jëli Modou Lo takk suuf ñëw wax dam jëli Ama Baldé ainsi de suite mais booy xool image man bu nga si jugé gis naa ne Modou Lo oos na trop gis naa ne Modou Lo moom vraiment oos na oos na comme comme dire que dafa mbapat fi mu ne nii mi ngi waaw gis naa ne dafa wow daal dafa wow ok instant dafa wow nga ne Modou Lo wow na koŋ koŋ koŋ koŋ waaw lan la parce que xam naa ne Modou bu mu jógee si blessure am à l'épaule ba léegi toogul. ok toogul. donc ça veut ni ma ko gisee si image yi nii. xam naa ne ku wow koŋ la. ku yàgg contact la. kong boobu moom. si mhm. moom. comme contact bi nga wax rek lay ñëwee ndax heure boo ko gisee. waaw géej nga koy fekk. saa yoo gisee moom li muy dugg saal wala dara bëriwul. lu muy nekk si boor géej gi mbeex mi. Mhm. que ce soit Lac Rose. Mhm. wala fii à Dakar. ah. ça veut dire contact ngay nekk ak Papa Sow ay Franc ay Gora Sock ay ñoom Talfa ak ñeneen ak ñeneen. Mm-hmm. donc ça veut dire gis naa ne mu ngi contact si suuf si. Mm-hmm. te donc ça veut dire que. Mm-hmm. mbër la moo xam ne instant bi il est impatient. ñëw jàkkaarloo ki nga xam ne mooy Modou Lo. ok régler compte ne booy man yow sama booy nga. wan Ama Baldé sama booy nga. yàkkamti na loolu dafa yàkkamti libérer supporteram yàkkamti libérer waa parcelle. yàkkamti jëlaat couronne bi delloowaat ko Barça. ok parce que moom mooy capitaine u lamb ji actuellement. Modou mooy capitaine lamb ji instant mooy capitaine lamb ji. bu du dirigé. mooy takk brassard mooy roi des arènes. boobu moo am Eumeu Sène mu daanu loolu kat moo ko mën a def Eumeu attention Modou Lo du du du du attention les Ama Baldé attention. Hmm. am nga ngëm-ngëm. ne da ngay daan Modou Lo. mais attention Modou Lo tactiquement moo koy daan. ok il faut il faut être dis nga am discipline tactique pour daan Modou Lo. ok du du du du à l'aveuglette comme lu tubaab di ko mooy daan Modou Lo. Hmm. tactiquement mooy daan Modou Lo. tactiquement tactiquement. ok. 1 e plus 1 égale 2. oh 2 plus 2 égale 4. 3 plus trois égale 6 teg dam di dem di dem di dem di dem ba dugal mooy daan Modou Lo je te le dis encore du à l'aveugle du asaaloo du song song bu baax bon lépp looy def dafa war a wóor mu Ama Baldé Ama Baldé booy jóg di wuti Modou Lo ba jàpp boo jàppulee rek du baax yow Ama booy dem di wuti Modou booy dem di wuti Modou Lo fexeel ba jàpp boo jàppalee du baax si yow li lay génnee foofu doo ko xam loolu du déplacé wu te jàppul. kon tey amaa moyen d'erreur. non erreur waru ko erreur waru ko. combat bi ñëw na ba pare. Hmm. il ne reste que ay un mois et quelque. waaw ah. bëreetul bëreetul le les temps mooy bii. mooy bii après dañuy lem combat yëpp. bii bu pare dañuy lem tous les combats c' est le meilleur combat de tous les temps. Hmm. mooy am bii. bës boobu looy digal Ama naka la war a mën a ñëwee. Ama li ma wax rek sànq gis naa am Modou mu oos. Hmm. donc li fii si kii bi. na fexe na fexe oos comme moom. waaw na fexe na fexe os comme moom waaw sinon rek lu baax si moom foog mu liggéey gën a contact parce que blessure boobu mu jëlee woon contre Gris pour man xaw na si bàyyeeku Ama Baldé waaw parce que faj blessure boobu jëlal na ko temps te pour mu jëlaat rythme rythme bu mu nekkoon rythme de croisière boobu dafa laajaat ay sacrifice mais xale la. Mhm. jàmbaar la te il moom mooy bëri à domicile. à domicile lay bëree. combat à domicile lay bëree combat moom mooy accueillir Modou Lo. kon jàmm jàpp nañ ni làmb jooju ku ñëwul midi waa Pikine feesal ko. non non dafa day moom ñoo moom jour boobu làmb ji ñoom ñoom moom làmb ji parce que ñoo fay nga xam ne jàpp nga ni supporter yi bu boobaa dinañ am lu ñu si ki nga xamante ne moo di Modou Lo. waaw mais moo dañuy lancer fair play. Mhm. parce que ñoom ñoo fay nar ëpp. Mhm. lu ñu wax wax fa dëgg ñoom ñoo fa nar ëpp parce que dañuy dox ñëw dugg ñële dañuy wut ay bus pour mun a dugg ci biir donc ça veut dire ni ñu gën fair play parce que ñun lu ñu soxla man su ma sañoon sax combat préliminaire jour boobu c'est la première fois dans l'histoire de la lutte du ñu sax njoganal dañuy ñëw rek bëre reer dañuy ñëw rek reer yow lan moo la fa yóbbu wallaay amateur lan moo leen fa yóbbu man lu ma fa yóbbu dëgg la mais combat préliminaire bu fa am loo bëri gars yi gisuñu ko xam nga lu ñuy xaar hmm. dugg si ama xam nga lu ñuy xaar. Hmm. dugg si Modou Lo xam nga lu ñuy xaar. Hmm. tuusu Modou Lo xam nga lu ñuy xaar tuusu Ama Baldé. Hmm. xam nga lu ñuy xaar ñoom ñaar ñu premier seen dugg géew à 18h40 ñoom ñaar ñu daje. la ilaha loolu ko daal. dara gisuma nañ ko nañ eto fii rek <laughs> après nañ dugg ci biir combat mais père li nga wax nii. nañ ko eto rek. nañ ko etto. père li nga wax nii doy na waar. nañ ko etto naa la jox rendez-vous prochainement nañu gën a toj combat bi. jërëjëf père Iba kontaan naa dégg nañ bu baax. ñoom maa la gën a bëgg jërëjëf père. merci mon frère merci jërëjëf jërëjëf.